asalaamaaleykum dal leen nag jàmm ci xaarala académie mbokk yi si daan xarala académie dañu seet dañu topp suñu tutoriel suñu formation HTML ak CSS tey dañoo ñëw ci lu am solo mooy naka ngay créer ay lien maanaam bu dekkoon da nga am page yu bëri naka ngay créer lien boo xamante ni moo lay may nga jógee si page 1 dem ci page 2 euh, wala tamit bu nekkee da nga def sa sit euh, sa page Facebook da nga ko si bëgg def xam ni ku cliquer si lien bi rek day dem sama page Facebook naka nga koy defee ok. léegi ñun ñu ngi doon liggéey ci dossier bii nii tuto html css fichier bi moo nekk ni index point html voilà xam cliqué ngeen xool ni euh, fichier bi amul dara ba pare ñu doo continuer ok c'est ngi nii fichier baa ni nii léegi ñu ubbi ko ak suñu éditeur de texte préféré notepad plus plus léegi notepad plus plus mi ngi nii ma première page ba tey mos nekk créer des lien moo nekk suñu cours tey léegi euh, damay def benn commentaire wax la nuñ ko nu ñuy defee syntaxe bi nga grammaire bi naka lañ koy bindee euh, boo bëggee créer lien naka ngay def ok mu tëj commentaire bi euh, ok hmm. ok ni commentaire la def nañ ko ci vidéo bi passé ma def benn tab ok bu dee syntaxe bi da ngay def ay href après nga def fi url après nga defaat benn ay page bu la neexee nom bi quoi ok voilà li mooy syntaxe bi da ngay def ay href nga def a comme balise a lay nekk léegi ñu créer benn ñu créer fii lien dañuy créer lien boo xamante ni comme par exemple tey dañoo am page yu bëri ñu bëgg dem page un jóge page un dem page deux ok comme euh, par exemple ñu créer yeneen page fii xool ci bureau bi ñu créer yeneen page ok ñu créer page bi beneen page HTML nouveau toujours HTML fii day jeexe HTML ñu def page kamu tuddee ko about point html oui ok li mooy page about xama tëji ko moom it fii ñu xool waaw page about moo nekk dara nekk fi xama def benn h1 h1 bind si page 2 page 2 pour ñu mën ko xàmmee ok léegi page 1 moo nekk nii ñu def lien bi ahref égale égal href mooy hypertexte référence maanaam euh, référence bi nga koy jox pour moom mën a dem ci page boobu léegi suñ page ñi koy tuddee lan about about point html ok léegi ñu tëj balise a bi ñu def xam bind page 2 h ok gis nga syntaxe moo nekk nii fi nga koy tijjee fi nga koy tëjee ok léegi xaaral ma defaat page un bi moom it fii ci kaw pour page bi nekk nii hmm, nu mu tudd sax ñun index euh, point html la ok that's crazy page d'accueil mooy suñ page d'accueil ok ah ok ñu xool ñu dem si internet bi xool fii H1 créer des liens entre les pages. Hmm. ok léegi bu ñu ñëwee si internet bu ñu xool fii euh, lan lay indi résultat moo nekk nii accueil baa ngi nii mooy euh, page 1 bi j'ai mal kii sax ok euh, grawul pas de problème ok léegi li mooy H1 bi ma def accueil mooy page 1 bi moo nekk nii index.html léegi page 2 mooy page about ñu xool gis nga mooy page 2 ñu xool liñ ci bindoon gis nga mu ngi nii page 2 pour ñu confirmer ko xam bind fii dara page page 2 ok gis nga mu ngi nii page 2 ok léegi bii nii moom mooy première bi comme moo jugee si page 1 dem page 2 léegi beneen bi bu nekk da am yeneen page yu bari parce que page yëpp doo leen def si benn dossier fii yëpp nga nga ranger leen fii nekkul bon pratique léegi bonne pratique bi mooy lan maanaam ni ñu koy defee mu gën a baax mooy nga créer fii beneen dossier comme nga créer fii benn dossier mën nañ ko tuddee euh, include syntaxe bi include léegi ñu def ko dossier include léegi about page bi dañ koy dugal ci biir ci biir include lañ koy dugal léegi ñëwaat fii ñu recherche xool ba page 2 gis nga dara du ñëw about page votre fichier est introuvable voilà parce que fichier bi ñoom ñaar bokkuñ page bu nekk léegi ñëw suñu outil xool fii boo defee nii ok console bi du indi dara du indi ni fichier bi gis na ko parce que fichier bi nekkul ci page bi voilà léegi loolu pour ñu changer ko naka lañuy def pour mu dem ci page bële euh, loolu yomb na comme fii nii about bi da ngay def euh, comme dossier noori dossier dossier bi mu nekk parce que ñoom ñaar ñoo bokk fu nekk include ngay def gis nga mi ngi nii def naa ko include def turu page bi léegi ñu defaat ñu xoolaat euh, ñu defaat fii xool ba am mi ngi nii page 2 ñëw parce que mi ngi nii include gis nga chemin absolu bi lay jox fii include about point html voilà léegi am na beneen bu nekkoon ni euh, ñoom ñaar bokkuñ dossier bu nekk par exemple moom html bokkuñ dossier boo xamante ni foofu lañ nekk waaw comme include bi nekkul fii nii include dafa génn comme par exemple euh, ci bureau bi la nekk wala HTML ñu def beneen dossier fii def ci index bi ma tudde index def fi index bi voilà léegi index bi mu ngi nii accueil moo nekk nii mooy index point HTML mais boo demee page 2 du ñëw parce que moom day ñëw ci index bi ñëw include léegi ñun dañoo bëgg mu génn comme bu ñëwee ci euh, fii dañoo bëgg léegi moom mu génn ba si ginnaaw daal ñu koy jox comme par exemple dañoo bëgg mu ñëw en arrière dugg si include bi ni jox ñu page bi léegi loolu naka lañ koy def ok loolu yomb na non ok léegi pour loolu ñu def ko boo ñëwee ba fii dangay def benn point mu ni ko revenu en arrière maanaam demal si ginnaaw boo génnee nga dugg si include jox ma page about point html léegi ñu xoolaat ba xam. Euh, ok ñu lancer suñu fichier index.html ok mi ngi nii parce que ñoom liñ bokkul fu nekk moo tax moom day day bëgg dem ci fichier euh, ci index bi daal koy xool foofu léegi ñu retour xool voilà mi ngi nii page 2 gis mi ngi nii dama juumoon sànq benn point laa defoon parce que deux points la war a def fii nii parce que dafa war a dellu ginnaaw ñaari yoon léegi bi mooy beneen page bi léegi ñun li ñu soxla mooy def suñu page Facebook wala suñu page euh, Twitter wala dara léegi loolu pour nga def ko yomb na par exemple yow euh, da nga nekk koo xamante ni euh, da ngay da da nga nekk si réseau social yi par exemple yow da nga bëgg sa page ku cliquer rek daal dem sa réseau social comme par exemple ngay ni comme visité visiter ma page Facebook yow da nga bëgg bind lii nii xam ni ku cliquer ci comme Facebook bi kese day dugg sa page léegi loolu nan lañ koy defee aw ñu def ñu dem a href oh that's crazy pourquoi a nga def égal ñu bind syntaxe ñu def syntaxe bi pare toujours nag euh, je préfère ça maanaam boo booy def programmation toujours del njëkk bind syntaxe bi voilà xam ni léegi doo def erreur léegi page Facebook bu nekkee page Facebook dafa xaw a parce que il faut nga indi comme HTTP bi voilà boo defee HTTP pare nga def www point facebook euh, point comme nga def nii ma def sama profil fii euh, wala ma def xarala. 221 ok léegi moo nekk nii bëgg nit ki bu cliquer ci euh, fii rek bu cliquer fii day dem sa page direct léegi ñu demaat ci kii bi ñu xool moo nekk nii voilà visiter ma page Facebook léegi bu cliquer da koy yóbbu gis nga mi ngi nii sama connexion moo moo activé wul moo tax aucune connexion internet mais mi ngi nii indi na indil na ma sama page Facebook képp koo xamante ni ku si dugg rek di nga gis voilà léegi ñun liñ liñ soxlawaat mooy lien yi dafa am ay comme par exemple fii ba tey lañ gis mooy lien bi day ubbeeku ci beneen page loolu mooy par défaut léegi attribut yooyu mooy yan comme par exemple euh, premier attribut bi mën nañ def xakaan jël bii rek def ko ci bii attribut yi boo koy def da nga naan target yii nii bis njëkk mooy euh, euh, blank blank moo nekk nii Euh, bu dee blank bi <coughs> pardon excusez-moi bu dee blank bi da ngay ubbi ci comme par exemple ci page bi nii comme même page bi comme bii nii bi mooy blank bi da ngay tijji taf taf ci beneen page gis nga page moo nekk nii tijji na ci beneen page bi mooy blank léegi am na yeneen am na buñ naan euh, c'est self ñu ñu def ñu def par benn xool blank euh, self am na tamit bu ñu naan self self moo nekk nii boo moo nekk par défaut moom da dangay ñëw tijji ko ci même page bi am na tamit euh, bu ñu naan euh, parent ay mots anglais la parent self mooy ci même page bi bu nekkee parent mooy ci euh, même ferem bi la koy dugal comme par exemple boo defee nii. param gis nga ci même kii bi page bi la koy dugal parce que mën nga mën nga am li lien yu bëri mais lien yëpp du dangay ñëw ñu tijjee ko si beneen page wala lien yëpp bëggoo ñu yem ci benn page bi voilà. mbokk yi doon seetaan Xarala Academy li moo nekkoon suñu tutoriel bu tey ma yaakaar ni jariñu ngeen si bu baax di leen dig daje beneen yoon ak tutoriel yu bees merci.